Mhm. président boo ko laajee mu ne bu mu mujj wax avec la société civile nee na musuma wax ne. Mhm. damay dem troisième mandat. Ah, buñ ko laajee Babacar nii wii nii non mu ne du ko wax moom léegi eh, mbir yi moom nu mu ci mën a jàpp. loo xam li ci mun jàpp mooy. Mhm. man bi ma nekkee professeur rek lu ma neex ma wax. loolu moo tax nag professeur neex dama doon toog ne Abdou Diouf dégg naa mu wax li ànduma ci maître Wade bëgg na def telle réforme ànduma ci. mais léegi nekkatuma professeur rek léegi dama nekk professeur waaye itam bokk nag ci gouvernement nekk ministre ministre d'état laa sax du ma ministre <laughs> ministre d'état ci wetu président président ne wax boobu dama bëgg léegi ñi nga xamante dañoo bokk ci man bu ci kenn waxti soo leen ko waxee da ngeen di alimenter polémique léegi ñu ne eh Ismaïla Madior moo bind affaire yi moo wax na lii nee na mu indi coow te wax na dëgg de bi ma ne en principe man foogoon man en principe ma ko doon la woon rek bi ah. ma bi ma gisee coow bi mu indi man dama jaaxle sax xam nga ñun universitaire généralement sooy wax doo wax comme loolu la quoi malheureusement c'est la rhétorique waaw waaw c'est universitaire da lay wax oui euh, est-ce que ce texte applicable nga ne oui en principe il est waxee quoi donc man ma ne rek principe mais en principe bi coow bi mu bi jur dama ne président Macky Sall wax na ku nekk ci moom nekk ministre d'État mu ne la lii bëggatuma ñu wax ci parce que suñu waxee day indi polémique te polémique boobu man daf ma yàqal sama liggéey ndax damaa bëgg liggéey mandat bi at moo xaw ma way la dama bëgg liggéey ma ne ko man comme président loolu la wax dama ci waxati yow professeur nga bu ñëpp ràññee ci Sénégal hmm. xanaa ministre d'État jaralu la nga jël salfaañe suñu constitution bi nga xam ne moo nekk au-dessus de tout non pas salfaañe ah parce que li constitution bi wax ñëpp di la déglu soo ba léegi ñu ngi naan ma laa laajal professeur troisième mandat bi pour mu leer tey une bonne fois pour toutes mais li nga wax ni dara leeragu ci dañoo bëgg nga wax leen ndax président am na droit troisième mandat oui ou non. loolu laa la wax. waaw même bu la wàccee suba nga ak professeur nga. non man professeur laa moom. Mm-hmm. ba éternellement. professeur laa Sénégal professeur laa ci université yu bari ci monde bi. dans ton intime conviction. mon intime conviction. oui mon statut de ministre d'État m'empêche de l'exprimer. ah bon. parce que y obligation de réserve qui pèse sur moi su ma ko nekk loolu nag man léegi nekkatuma ministre d'état président Macky Sall dootul sama dootul sama kilifa dootul sama patron lu ma neex laay wax su boobaa boobu ma wax mais koo xamante ni y obligation de loyauté dafa la dénk mission nga war ko jàppale ci mission bi war ko jàppale ci politique ngeen di liggéey mu ne lii bugguma ko ci wax yow nga dem fële ne wax nga ma waaye man lu ma neex laay wax su boobaa nag xam xam lan moo lay dal manque manque de mais la nga waxoon répété ko ñetti yoon dama leer na benn yoon amul droit bii mooy dernier xawma sa waxaat ko répété waat ko trois fois nga répété ko vaar bu amoon léegi ñu génn article 27 de la constitution dit le président de la république est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs je vais répéter la phrase ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation contexte boobu dañ ma ko laajoon ma wax ko que boobu yaakaaroon naa ne non yaakaaroon naa ne war naa ko wax waaye contexte bi ñu nekk nii mhm. pour man président dafa ne bëggul ñu wax ci ndax dafa dafa jàpp ne mun na nekk ci li nga xam ne day yàq liggéeyam indi distraction bu leen ci wax man mi nga xam ne de damay liggéey ak moom te ci liggéey bi moom mooy sama kilifa ne bu leen ci waxati damay dégg dag dégg. nag amoo ci ñaari position en principe amoo ci ñaari position non non amoo ci ñaari position benn position rek. mais en principe war nga ñu mën a tontu pour déclic mën a judd tey <laughs> en principe. wax yàlla ñëpp a ngi lay déglu de. <laughs> Pape de. en principe. mais ne na comme comme amu ci ñaari position. Mhm. te njëkkoon naa joxe bële dañuy jàpp ni ba mu amoon la. ba bi mooy second bi. ba mu waxoon la rek bu ñooy second rek mooy troisième amut. waaw hmm. noonu la waxoon de. am de. <laughs>